ngeen jot suñu vidéo nag ne dugal bi nga xamante ni nag amal na ko ca groupe des média président bu parti bi di Pastef Ousmane Sonko nag ngir daal di massaw groupe bi gannaaw bi nga xam ne nag seen signal dañ ko daggoon diirub ñetti fan ci jamono yu weesu. suñuy bokk suñuy wëllëre muy groupe des médias nga xam ne ci li fi xewoon ci fan yi ñu génn. am na lu jot a dal seen kaw ci lu dul yoon ndax Sénégal gis nañ ni ci ñetti fanu yàlla dagg nañu seen signal ba mënuñu def seen liggéey. gannaaw bu mu rafetloo doxalinu président Ousmane Sonko nag rédacteur en chef bu groupe bi jàpp ni waa CNRA dañu daal di manqué élégance ci doxalin ba. forme bi ñu ko defee woon nekkul forme bu légal moo waral ñun suñu bopp yónnee mise en demeure CNRA pour xamal ko ni jaaroo ci yoon yi nga war a jaar parce que bindoo ñu sax pour xamal ñu ni. maa ngi leen moom nag mu daal di visité makkaanu groupe bi yëpp ci njàppandalu coordonnatrice rédaction yi. Moumi Dani Gueye qui est également la directrice de Zik FM qui est en deuil parce qu'ayant perdu son papa Thione Seck elle n'a pas pu euh, se déplacer c'est pour cela c'est ce petit comité euh, représentatif des trois rédactions gannaaw groupe des média nag président Ousmane Sonko fas yéene it soldalam dem nemmeeku yeneen groupe de presse ba tey ci massaw leen waaye jaajëfal leen ci seen taxawaay gannaaw manifeste yi weesu. ngeen a